avocat yi layal njabootu dem si yàlla astu soxna ginnaaw bu ñu sàkkuwee ñu dàkk procès bi waroon a ubbi tey dañu ni rek dañuy dolli beneen plainte maître Ousseynou Gueye biral na ni Djebel Aplante Boubès, qui bu ki nga moy procureur de la république Daniel ah, ñu qui a été rek ci flagrant délit Manam japp loxo ci poche ah, ray ci homicide volontaire lañu ñu bëgg Timberli, parti ci mbir yi ah, partie civile bi dañu nam ñu itam gynécologue mi chef juróom-benn sage femme ñu Top ji procès astu soxna nak faf nañu ko dak ba fan ci euh, tribunal bi da fay gëna may diir avocat parti civil bi euh, ñu yër euh, rapport ministère de la santé bi ak dossier bu astu soxna am feulé ci hôpital Sakhir Mbaye bu ci dossier astu soxna bi ba tay kilifa diine bi di Thierno Bachir Tall def na ab intervention di ñaan njabootu ndaw si ñu jéggelé ba taxna na nang nañu bal juroom ben sage-femme yi ñuy top te waron leen até tay waye nak jéggel bobé du téré yoon way di def liggéeyam. тем тенем. footballeur bi di Papis Demba Cissé la ñu door ñaari milliards ci suñu koppar Mamadou Diène ñu gën ko xam ci turu Madou Diène moo ko nax tegal ko et projet ba noppi ñendee ko lamset Mamadou Diène mitrian de Papis Demba Cissé daf ko jege woon loolu moom nag day jaabante diggante Nofwar Saly ak Manchester nekk nag ci réewum Angleterre bi mu jëlee koppar yu takku yooye nag dafa ne rek ni fes ni meles kenn gisatu ko moo tax maître Bamba Cissé mi layal Papis Demba euh, plainte mandat d'arrêt international euh, ci nak la ko loxo Mamadou euh, ñu aéroport international Blaise Diagne AIBD mi nek fofu ci da rek jël roplanu Turkish Airlines ngir dem Angleterre kuy wuyoo ci turu Serigne As itam ñu ngi biral ni teg nañu loxo ni ki ci guddi euh, ku ñu ni moo faat bu ñu euh, si suba si la ñu njëkk jàpp ku mu àndaloon euh, di def jëf rapport autopsie bi takk der jot viol bi libération biraloon médecin légiste bi nee na kenn ci kaw xale bi waaye dañu ko Anta Ndiaye mi ngi tolloon ci juróomi at ak ñett. waa Colicode di ab kuréel buy xeex ngir ñu génnee professeur Cheikh Omar Diagne ci kaso bi ñoom nag ñu ngi ñaawlu tere bu ñu tere seen doxum ñaxtu bu ñu waroon a amal tey ba tax na ku bokk ci ñoom di wuyoo ci tuxu Seydina Mohamed Diallo nee na nekkul lu ni mel mooy tax ñu dellu ginnaaw te sax dinañu def ay bés yi rek di ñëw li nga xamante ne par force professeur Cheikh Omar Diagne dina génn ci kaso bi. Ni yëngu ci wàllum tourisme rafetlu wuñu benn yoon liggéey bi nga xam ne moom la joriñ bi leen yilif di amal nee nañu Alioune Sarr dem bi ak dikk bi ci jéeri ji maanaam transport aérien moom la gën a jox bopp ba tax na Mamadou Racine Sy nee na dañoo war a séparer ñaari ministère yi di transport aérien ak tourisme koppar yu leen nguur gi waroon jàppale toll ci ñaar fukki milliards ci suñu koppar jotaguñu ci sax ab 15 Mamadou Racine Sy nag moo fédération des organisations patronales de l'industrie touristique du Sénégal euh, di ab mbootaay bu ëmb ñi yëngu ci tourisme fii ci suñu réew. ci art et culture Rudy Gomis bokkoon ci orchestra Baobab moo wàññeeku ci guddi talaata gi euh, jëm àllarba fi nga xamante ne moom mooy Ziguinchor euh, moom dafa amee woon tawat at yi yëpp feebar boobu sax moo ko mujj ñu ngi koy ay jegeñaaleem ak réew mi yépp lii rek lañu leen andiloon tey ci tënkum xibaar yi tolloo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weerum avril 2022 euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci topp bi ngeen ñuy topp euh, di leen di ñan rek ngeen wéy di abonné ak itam di appuyer ci cloche de notification bi ngir dara bañ leen rëcc ci ay xibaar